بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin mbokk jullit yi mbokk talibé yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ci ndigalu tuba Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yéen fi yàgg loolu te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Dame Abdourahmane Mbacké xalifa sëriñ Ibrahima Mbacké Khadimou Rassoul sëriñ Falilou di ibnu sëriñ Ibrahima Mbacké Khadimou daam di rak di jawriñu sëriñ Dame Abdourahmane Mbacké xalifa sëriñ Ibrahima Mbacké Khadimou Rassoul ak mbooleem jabootug sëriñ bi ñoo yëgle u teeg juma maqama Ibrahima ja sëriñ Dame Abdourahmane Mbacké tabax ca Ibrahima Touba Fall Jannatu Baye Fall ga ajjuma lay doon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2024 ñu di ko yëgal njabootug sëñ Touba képp dale ko ci njabootug sëriñ Modou Moustapha ba ci njabootug sëriñ Mourtala Mbacké Khadimou Rassoul njabootug soxna Fat Dia ba ci njabootug soxna May Zuhra ak mboolem ñi ñu bokkal Mam Maram Mbacké Mbousobé ak Afe di ci woo mboolem cheikhu sëriñ Touba yi mboolem talibe yi rawatina talibe yi aju ci kër sëriñ Ibrahima Mbacké Khadimou Rassoul di ci woo mboolem jullit yi këru diine yi imaam yi jàngalekatu alxuraan yi ak mboolem autorité yi xew-xew bangoog ubbiteeg juma makama ibrahima ca touba fall jannatu bay fall ga ak juma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2024 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس